politiquement. alors euh, sur le cas Ousmane Sonko. comme ni nga ko waxee woon du bokk waxoon nga leen dañu wuti candidat. Mhm. Euh, mu mel ni le plan B waa Pastef jàpp nañ ne c'est Bassirou ñoom seen slogan mooy euh, Bassirou Sonko mooy Bassirou mais Pastef dafa euh, walla l'ex Pastef bokk wala Ousmane Sonko dafa porter. trois candidats ñoom ñëpp ñu jàll parrainage muy Bassirou Diomaye Faye euh, Cheikh Tidiane Dièye ak Habib Sy alors est-ce que ñële dañ leen di considérer comme allié ñu bàyyi leen ñu dem doxal seen bopp euh, su est-ce Sonko va se prononcer en faveur de Bassirou Diomaye wala est va euh, donner la chance à tous les trois candidats déglu naa benn vidéo Ousmane Sonko mu sol mbub mu weex ak mbaxana mu weex mu di daal option yëpp mën a nekk mu ni mën na joxe ñetti candidat pour que ñetti candidat yëpp ñëpp wax ci projet bi pour nit ñi gën a xam ci projet bi wala boog bu ko jaree waree tànn kenn rek mu tànn ko. te bu tànnee ñëpp topp ko. voilà loolu la wax. Mm-hmm. nee na ñaari option yëpp mi ngi dépendre rek ban la ci xalaat ak ban la ciy jël. mais man li ma jàpp mooy. Ousmane Sonko li tax mu def kàndidaa yu bare lu leer la c'est très clair pour man xel mi ko lal lu leer la gëmoon na moom ci boppam ni gars yi duñ bàyyi Bassirou Diomaye Faye mu jàll. moom loolu la jàppoon. tu comprends. Mm-hmm. gëmoon na it ni même Cheikh Tidiane Dièye sax mën nañ ko ci laawaale. Mm. moo tax mu jël ay parrainage yu député am jox ko Habib Sy maanaam dafa envisagé woon hypothèse yëpp dafa tegoon hypothèse yëpp ci table ji maanaam bu ñuy dindee jomaay dindi Cheikh Tidiane kan mooy des li tax li tax mu sécuriser Habib Sy jox ko ay député am xam nga loolu lu am solo la. loolu ça veut voilà ko pare yooyu c'était pour sécuriser. c'était pour sécuriser au moins benn candidature tu parce que Habib Sy moom démarche am ci Habib Sy da ngay xam ne lii pour sécuriser dara la parce que Habib Sy bokkul Pastef dafa am partem ñu bokk coalition et cetera mu jël ay député jox ko mu leneen du am benn problème bu doublon wala quoi que ce mooy pour sécuriser loolu la ci jubloon mu leer ko ni wóor na ko ni dina am kenn koo xam ni moo koy représenté ci élection bi ànd di dox ba mu am ñett ñett yooyu nag piège la ci moom. ah bon. Uh tey Pastef bu ñu demee à trois candidats tas seeni voix du ñu àgg deuxième tour. Hmm. dégg nga baax na ma amul benn sondage Sénégal configuration politique fii bu Pastef am plus de trente cinq pour cent amul ça n'existe pas. amul amul benn sondage amul amul amul donc seen voix bu tasee mooy demuñu deuxième tour